wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. laayeen muy tiijaan muy fu mu mën a doon sa taxawaay bi yëpp xam nañ waaw yëpp xam nañ ko ku la ku Serigne Saliou fonkoon nga it. lool lool loolu man xamoon naa waaw waaw si jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax sa sa ñëw bi rëy na ci ñun rëy na ci ñun lool lool lool lool te jàpp nañ ko ñu ngi ñu ngi yeesal siyaar yëpp day ñaan Serigne Touba fay leen waaw seen yéene barkeb Serigne Saliou jërëjëf léegi nag li ma bëgg na na mu ñaan waaw waaw waaye ginnaaw boo ñaanee ba sëñ Maodo mu ni damaa bëgg damaa bëgg mbooloo mi yëpp mbooloo mi yëpp sa jëmm jii rek sa jëmm ji rek ak jëmmi ku baax ak jëmmi ku baax Cheikh Béthio moo nekk seen xol moo nekk seen xol ak Baye Cheikh Saliou ak Baye Cheikh ak Serigne Touba mi ak Serigne Touba mi nga xam ni moo waral bis moo waral bis bi ñëpp a ngi la yaakaar ñëpp a ngi la yaakaar man nag man nag dama lay poñe dama lay poñe cere jaboot cere jaboot ku ca bëgg ku ca bëgg fekkal yaay ja fekkal yaay ja ca waañ wa ca waañ wa muy tay cere muy tay cere jël doom ji jël doom ji teg ko fee teg ko fee di ko dawale saxaar si di ko dawale saxaar si ak naaj wi ak naaj wi ak tàngaay bi ak tàngaay bi boo amee xel nag boo amee xel nag demal jël doom ja demal jël doom ja fab ko fab ko tanga naa ko yaangu tanga naa ko yaangu yaangu yaangu yaangu yaangu soo paree soo paree yaay ji su paree yaay ji su paree ba xitti inde ba ba xitti inde ba këpp ko ci këll bi. këpp ko ci këll bi. jël kuur gi. jël kuur gi. toj ko toj ko xaw ma kan. xaw ma kan waaye yow mi jëloon doomam. yow mi jëloon doomam. di ko ko nafal di ko ko nafal. dina la may wogg. dina la may wogg. tey nag. tey nag fii. fii ci adduna bi. ci adduna bi ci senegal ci Sénégal ci bi. ci adduna bi bëgg ci Serigne Béthio. ku bëgg ci Serigne Béthio. wala ci sëñ saaliwu wala ci sëñ saaliwu ndax la tax ma ne sëñ saaliwu ndax la tax ma ne sëñ saaliwu dafa am di ngërëmal sëñ dafa am ngërëmal sëñ saaliwu da koo gërëm da koo gërëm man xam naa ci lu bari xam naa ci lu bëree bëri bëree bëree bëri waaw xam naa ci lu bëree bëri xaju fi ci wax xaju fi ci wax kon kon ngërëm loolu nga am ngërëm loolu nga am te am nga te am nga ngërëmal Cheikh Mountakha ngërëm Cheikh Mountakha am nga am nga ngërëmal sëñ Touba yëpp ngërëm sëñ Touba yëpp am nga nga am nga ngërëmal sëriñ Cheikh ngërëmu sëñ seex borom ngërëm nag borom ngërëm nag bu ñaane bu ñaanee mu nangu mu nangu ma bëgg nag ma bëgg nag bu fi kenn jógee bu fi kenn jógee aajoom fajul aajoom fajul boo nee rek boo nee waaw rek waaw waaw jeex na waaw